ndeysaan Bécaye ak Lac Standard waaye le griot du peuple waaye xamoon nga ne Lac Standard parcelle la nekkoon tey tey duggaat biir parcelle waaye dafa duggaat parcelle nii jël Bécaye Bécaye doomu parcelle tamit encore mu ne da nga bëgg wax ne dafa doy na waar nee ko boo ma xamoon jël Eh, ca Mbour du yomb ay an <laughs> ndeysaan mu ngi noonu lasta ndeer bekaay lasta moo njool bekaay moo ñuul moo gàtt ay xalil ay xalil xamoo lasta <laughs> ay yéen reporter bi nee xalil xamul lasta ndeer lasta ndeer cey las fekk ay doomu parcelle la hey la Sander cokkaas na ko ay arbitre jox na avertissement ki nga xam ne moom mooy Bécaye deux avertissement ku nekk avertissement soo ko boole muy deux bëre leen waaye la Sander dama leen di fàttali rek ne parcelle la nekkoon nekk fi nga eh eh ñooy xeex eh am njaay joxal jóob ga la sandeer ak bekaay ee eh, ñanku na ñanku ñëw na eh, eh, ànd ak Mandumbe ee <laughs> ee lii lan la nii ee bekaay la walla bekaay war na ko ndomb mo ngay dugal mo ngay rokos moo ngay rokkos moo ngay dóor bu nga am problème Lastander dinaa xool mi mooy sa Lastander eh yëkkati koy def baaxul war ndox bu penalty lamb penalty lamb la penalty lamb la Lastander génn na ca eh, eh eh waaye Lastander bu ba gisaat naa ko waay waaye lii lan la nii Lastander jàpp na tànk ba bekk ay nelaw na ca la mete Mamadi Ndiaye Lastander <laughs> bekkaay Lastander ak Bécaye waa Lastander waay Lastander di ndaanaan ay Lastander ay Bécaye boo ci génnee waaye Lastander mi bu ci génnee moo xam ne mooy Lastander hee ba tey moo ngay waxan moo ngay naxanteeg moom Lastander ba tey mu ngi ko wër ndoom Bécaye xale la l'expérience face à la jeunesse muy Bécaye ak Lac Standère ba léegi mu ci suuf waaye Lac Standère a ngay jéem a jóg ñoom ñaar ko gis mais Lastander Lastander na ko ndomb Bécaye jóg na wër ko ndomb Bécaye wër na Lastander ndomb nee naa leen lii waaye Lastander mi dëgër na de eh eh Lastander Bécaye arbitre looy sifflé arbitre loo yàq arbitre lan la arbitre la standard daa def quatre appuis wala jox na jox na jox na Bécaye victoire Bécaye daan na ko Bécaye daan na ko